waaw mbiru prison yi kay lu doy war la mhm. euh, lu ñu war a seetaat la ndax euh, gis nga d'abord na nga seetlu dara mhm. réew bu bëree prison bëri ñu fa nekk mhm. ba xajatuñ ci prison yi déjà am na feebar boo xam ni law na ci réew mi ndax prison ay benn benn ñoo fa waroon a dugg ñoo xam ni def nañ loo xam ni jéyee boo xam ni maanaam dañuy dañuy exposer société bi ci danger. Mm-hmm. boo leen bàyyee ak liberté loolu moo tax prison dëgg mooy privation de liberté. Mm-hmm. maanaam boo leen bàyyee ñuy dox ci pénc mi mën nañu def njaaxum yu bare bari. Mm-hmm. ñooñu moom foog ñu téye leen am nañu def ak ñoom. mais bu ñu demee ba daanaka ma ne la xale yi fees dell ci prison yi ah mag ak ndaw góor ak jigéen. Euh, kon société boobu feebar na. war na seetaat boppam. Euh, kon nag déjà loolu seetaat éducation bi. seetaat mbirum liggéey. Euh, maanaam emploi laa ci jublu. Mm-hmm. seetaat famille yi. parce que mm-hmm. tey jii. Mm-hmm. bëri na kuy dem prison boo demee di nga fekk ni yaayam sëyul ak baayam wala que dañ ko bàyyi ci mbedd mi euh, wala yu mel noonu. kon ñu seetaat société bi yëpp. dysfonctionnement yi am ci société bi. ba tax nit yi dem ci prison parce que société bu nekk mooy yóbbu ay nitam prison ni muy fonctionner. kon loolu déjà lu ñu war jàngat la bu baax. seetaat ko. Euh, bañ a def fuite en avant. bëri na koo xam ne tey mu ngi prison mm-hmm. am na benn waay bi dox fii ci mbedd mi mm-hmm. euh, condition yi mu nekk rek moo tax moom demul prison mais gënul ko fa nekk yooyu yëpp yu jar a bàyyi xel la mm-hmm. euh, te tey ji ñi am ndombo tànk tey ci Sénégal wala nga am benn statut social wala statut politique wala nga njabootoo ñooñu euh, daanaka mën nga def la neex te prison la ci fekk boo dee baadoola nag prison mën na laa yomb kon te comme condition yi nga ko waxee nii. mais boo amee yenn statut social yi. wala politique. non seulement prison dana jafe ci yow bu ñu demee ba xamuñu ni ñuy def foog ñu jàpp la ndax yëf yi fés na ñu jàpp la mais même buñ la jàppee danañ gaaw a lijjanti nga génn moo xam dañ koy jaarale ci santé moo xam dañ lay dugal ca foo xam ni yaa ngi ak sa climatiseur di seetaan say film am na kaso yoo xam sax ne nañ directeur kaso bi day combiner ak waa ji guddi sax mën na génn dem mm. eh, doxee ay soxlaam ñëwaat gis nañ ko fi am na koo xam ne moom ci boppam daf ko nettali kaaw boppam mm. kon te boobu temps ñi ngi bàyyi yeneen xale ci tàngaay bi ñuy buuxante ci ay néeg mhm. euh, ci loo xam ne lañ def sax eggul ci ku am sarti social wala politique lu mu def kooku yenn saa ñu naan la moo détourné ay milliards xoolal kii ñu ne lan la def benn xaru jàmbur la sàcc fii wala nangam kon loolu déjà lu doy waar la euh, kon ñaareel ba ki dem kaso nit la mhm. objectif bi moo xam même ci droit ak ci moral ak ci l'islam mhm. objectif bi du dem foofu toroxal ko Euh, pour mu xeeb boppam nga xam ne bu génnee sax danaan mënatuma def dara du ma nit mais objectif bi rek mooy euh, yar ko lu mu tollool rek ba su génnee euh, daal di rëccu lu mu nekkee woon xam ne sii du place am société bi mooy place am am na place ci société bi mu kon ne la muy def kon loolu moo tax war nañ améliorer condition prison yi ak tamit lépp loo xam ne rek mën na tax nit ñi bañ faa yàgg-yàgg boo xam ne jaru ko ñu xalaat def ko tey boo jëlee yenn xale yi nga xam ni xëy na def nañ loo xam ne egg na foo xam ne war nañ leen téye wala yu mel noonu. Mm-hmm. mais lu tere par exemple ñu leen def loo ay travaux publics d'intérêt public. Mm-hmm. tey par exemple ñu ngi naan agriculture bi. Mm-hmm. ñu ngi defar ay domaine agricole nangam nangam. xale yooyu mënuñ leen yóbbu ci région yi ñu formé waale leen pendant un an par exemple koo xam ne da nga war a toog kaso un an wala six ñu formé waale la foofu nga amaale métier ah euh, ba pare euh, sax ñu lay jox ndàmpaay. parce que dañ koy def ci ay dëkk. di la fayaale dara. nga xam ne boo fay jógee dangay ngay amaale métier. ba pare nga gën a am considération ci sa bopp. Euh, ba pare nga amaale ndàmpaay. Euh, ba pare lool sax mën na tax bu amoon peine bu ñu la def. bu ñu xoolee sa comportement ak yëpp foofu boo dellusee. magistrat bi ñu defal ko rapport mën na wax ne kon xale bi même bu fekkoon dafa waroon def un an deux ans kon léegi nañu dindi un an bi parce que comportement am correct na. ñu may ko chance mu dellu société ba xool lu muy def. kon yooyu yëpp war na war nañ ko seet. mais mentalité bi ñu am ñun ci kaso mooy toroxal nit ki même boo gisee en général waxuma ñëpp. mais ñi nga xam ne ñooy nekk foofu euh, ak yenn policiers yi du ñëpp. boo gisee nu jàppee nit ni ñu koy def. ak bu ñu ko fa dugalee ni ñuy defanteeg moom. dangay yaakaar ni sax kooku ñoom la def dara te fekk kooku société bi la amal problème mais ñooñu sax da ngay foog ni sax moom la. gëdd bi dóor bi bëmëx bi. Euh, nangam ak nangam euh, ak tam condition de santé yi nu mu doyee waar ay ñaari toilette pour xaw ma combien de personnes ah ngay tuur ndox ci sa bopp et cetera ndax am loolu foo koy defee wala nga feebar ñu ne laa ah, bàyyil ba suba infirmier bi fanaanu fi tey wala kenn fi nekkul ci garde bi yu doy waar la yoo xam ni moralu doomu adama nanguwu ko l'islam nangu ko kon loolu bokk na ci problème yi nga xam ne tey société bi war na ko war na ko toppatoo en général nag parti politique duñ ci wax lu bari jóge fi jóge fi ma toog. Mm-hmm. loolu moo leen yitteel. Mm-hmm. moo tax euh, mbiru kaso yi. Mm-hmm. en général doo leen dégg ñu wax ci société civile ngay dégg ñuy wax lu dul ñoom seen bopp bu ñu ci jàppee ñenn seen bopp xam ñoom dañuy tëjante ku ñëw tëj ku jekku sama morom tëj kuñ ci tëj nag boo génnee daan yii kaso baaxul waaw mais nag war nañ ko seet comme problème de société. ñu ñu rafetal ko.